mbokk yi nuyu na leen jaajëfal na leen bu baax mbokk yi ñu seetaan ci seen site préféré di 28 pro am na nu mbégte waaye tamit euh, namoon na leen lool ci géej a jàkkaarloo bi ci li nga xam ne moom mooy waxtaan yu ñu leen faral daan indil muy ay entretien exclusive mbokk yi tey nag seen euh, site 28 pro dafa doxantu ba fi nga xam ne moom mooy commune bu ba Cekkeen euh, fekk fi benn ci ay doomam di yëngu ci administration waaye tamit di yëngu ci langue politique bi di doom ci département bu Mbàkke bi di kilifa bu ñu dénk ndombal tànk au niveau national Mamadou Lamine baara gay di sunu gantey ci seen émission bi nga xam ne moom mooy euh, entretien exclusif bi nga xam ne dañ koy amal ñu koy wax nemmeeku seen bi Gaye ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw jërëjëf Sidi maa ngi lay nuyu bu baax. di la dalal comme ni nga ko waxee fii ci Taïba Cekkeen euh, di nuyu yëkkati nuyoo nuyu monsieur le maire de Taïba Cekkeen Alioune Seck di Bada ak euh, ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ay responsable cosaano fii ci Taïba Cekkeen di nuyu tamit euh, sama xalifa Abdou Gaye ak Pape sama frère yi ak waa kër gi ñu ngi fi fekk ñëpp ak les conseils municipaux di yëkkati kàddu gu njëkk di ñaanal Sëñ Muntaxa Bachir yàlla yàggal ko fi lool waaye magi ba yi jiitu ji tamit ñu ñaan yàlla yërëm leen te jégal leen dolli leen ay yërmande di la nuyu bu baax di la nuyu tamit ci administration euh, en tant que directeur du SNEIPS jot li nuyoo madame le ministre de la santé et de laction sociale docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye xam nga jamono yi ñu mujj moom senegal dafa am ay néew yu bari yu ñu ñàkk ci accident yi donc occasion la tamit pour ñu ñaanalal leen yàlla leen yàlla yërëm te jégal leen woyofal suuf ci seen ci seen kaw. Euh, mu nekk lu am solo ñu ngi lay fay tamit di la jaajëfal baax a baax ci kàddu nuyoo yooyu nga xam ne delloo nga ñu ko ñu ngi am mbégte tàmbaleeg waxtaan bi ci fi nga xam ne moom mooy sa cosaan euh, Bara Gaye Tayba bala juddoo wala Mbàkke waaw man comme ni nga waxee fii laa gane àdduna ba Cekkeen fii ñuy defee waxtaan wi ci daara ji di occasion la tamit pour santaat suñuy waajur yu baax yi nga xam ne yàlla def na tey jiitu ji nañ waaye ñooñu tax ñu gane àdduna ñu tàggat ñu teg ñu ci yoonu lislaam nuyu leen ñoom ñëpp di dolli ay ñaan ci yàlla yàlla yërëm leen te jégal leen encore ah di nuyu tamit ñëpp ñi nga xam ne dañu cosaanoo Taïba Cekkeen nekk fii ci Taïba ak ci Touba ak ci Mbàkke ba ci bitim réew waa diaspora bi yëpp fu ñu toll rek ñu ngi leen di nuyu di sàkku ci ñoom ñaan te xam ne ñun Taïba rek la ñu am. mën na fii nga jàngee tamit fii nga tàmbalee. fii laa fii laa dalee école primaire ci école bi mu ngay mu ngay dugg ci commune bi moom Ngorom fii laa nekk ba am suma certificat d'étude après laa doog a jàll Mbàkke CM Gaynde Fatma ma def sama cycle euh, secondaire moyen doo ko dem lycée xam nga boobu Mbàkke amagul woon lycée Diourbel laa defee suma collège waaw loolu moom mooy sumay étude occasion la tamit ma remercier waat jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñëpp jaar naa ci seen loxo rawatina ku mel ne Baba Gissé am na yàlla def na mi ngi dund ba léegi bu yàggul rek ñëw na fii Taïba Cekkeen seet si woon ma ñoom ñëpp occasion la pour man ma rentre leel hommage encore xam ne gannaaw suñu waajur yar bu ñu yar ak nit ñu taxawoo lu ñu am tamit dañ ko jàngalekat yi ñoo tax ñu nekk ko te yàlla def na tamit sama premier métier jàngalee la. alors euh, Bara ñëw ci actualité nationale euh, ci weer ak euh, lu ko yées bokk ñu tàmbalee ko ci li nga xam ne moom mooy rapport Cour des comptes ñu épinglé ci ñu bëri tey mën nañu tamit ki nga xam ne moom la ñëpp jàpp ne moom lañ gën a épinglé. muy euh, secteur bi nga xam ne moom ci nga nekk muy santé ministère de la santé alors euh, ci loolu euh, bëri na ay justification yu génn bëri na tamit ay modification yu ne moom am na ci ay rectification bokk mais secteur bi nga nekk walla direction bi nga nekk tamit lan la ci mën a seetalee boppam ba nga xam ne maanaam tey mën nañu ne mu ngi liggéey liggéey bu transparent ci nga xam ne moom mooy période boobu nga xam ne génnoon na ci waaw jërëjëf xam nga rapport bi moom bi mu génnee maanaam coow li bëri woon na lool waaye li am solo mooy eh, instru kii nga xam ne kuréel gi nga xam ne moo ko génnee muy cour des comptes ñëpp xam nañ ne kuréel gu am solo la ay magistrats ñoo fay liggéeyee te yàlla dogal na tamit bi président Macky Sall jëlee réew mi en 2012 def nañ réforme yu am solo pour renforcer cour boobu aussi bien ci ay pouvoir am que ay moyens yu ñu ko jox mais en termes de recrutement ay magistrats de niveau ñi xam Dakar xam nañ ne chantier Cour des comptes yàggoon na président Macky Sall moo ko yeggale ba tey gis nañ fi ñu nekk ci boulevard de la République loolu yëpp rek day wane ne suñu gouvernement naka jekk am nañu engagement pour def loolu ñu naan transparence ak gouvernance léegi nag comme ni nga ko waxee rapport bi ci Covid bi la porté woon effectivement bëri na ay recommandations yu mu joxe am na ñoo xam ne aussi cité nañ leen ci waaye li ci am solo mooy gouvernement bi communiqué na ci gis nga. ministère de des finances nga xam ne moom mooy yore kopparu réew mi Moustapha Ba def na conférence de presse ànd ak ministre de la euh, communication ak porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana leeral exactement li nga xam ne moo ci nekk leneen li ci des aussi ministre de la justice wax na ko premier ministre wax na ko Euh, li ci des président premier président cour des comptes moom mooy saisir le ministre de la justice bu waree am une suite judiciaire dana ko am képp koo xam ne gis nañ ne waddal nga ci ab koppar boo xam ne warul woonul jaar ah, bu booba boobaa euh, yoon dana la woo nga leeral ko loolu moo ci am solo mais li am solo mooy président Macky Sall naka jekk loolu la mës a wax je ne protège personne képp koo xam ne jël nga koppar ci réew mi te waroo ko def ko foo ko warul def di ko leeral incha allah. alors euh, mën na ne say euh, maanaam prédécesseur euh, ñi nga xam ne wutum nga leen ci kii bi wala yow vous êtes tranquille waaw ñun man ci sama service comme ci administration la ñuy doxee bi ñu ñëwee effectivement bokk na ci service yi nga xam ne géré nañu ressources yooyu nga xam ne moo jaaroon ci Covid bi waaye lépp leer na et man mi sax jotoon naa ab lettre ci administration waaye dafa am loo xam ne ci secret administration la jarul ñu koy wax mais li am solo mooy euh, bu fekkee ne Cour de comptes daf laa bind ci lu mel noonu yow li nga war mooy leeral joxe ay preuves. li am solo mooy ñëpp xam nañ ne Sidi euh, Covid bi bi mu amee nga xam ne dem nañ ba avion dawatul bateau dawatul ñu ferme frontières yi nit ñi sax tëdd maanaam procédure de passation de marché yi il fallait que ñu gaawal ko parce que booba am na ñoo xam ne boo fi nekkee di laaj dara dañ lay laaj xaalis nga doog a fay mais ñëpp xam nañ ne quand même ay fonctionnaires ñoo ci engagé wu ñoo xam ne dañu risque sax seen dund pour que ñu mën a sauver nit ñi. loolu moom am na te vraiment liggéey nañ ci liggéey bu am solo li ci am solo nag mooy rapport bi génn na am na ñoo xam ne cité nañu leen ay danañu leeral gouvernement bi communiqué ci jusqu'au niveau le plus élevé comme ni ma la waxee premier ministre li am solo li ci des euh, on va suivre le cours normal des choses mais jàpp naa ne quand même suñu gouvernement def na ci liggéey bu am solo ci Covid bi te loolu yëpp Sénégal ñëpp gis nañ ko Euh, mën nañu wax tamit ne yéen ngi nga xam ne yéen yore direction boobu noonu nga xam ne service national d' éducation et d' pour la santé yéen ay joxe xibaar chaque fois wala boog chaque jour euh, mën na xibaar bi mën na njëkkee ci yéen donte le sax maanaam mën nañu maanaam le directeur de la santé mën na taxaw wax wala keneen ci mm, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci direction bi euh, nit ñi askan wi li ñu jàppoon moom mooy que ni dañ leen doon nax ci par rapport ak yi nga xam ne moom lañ daan élevé par jour. noonu non loolu moom xam nga bu mbir amee am na ñoo xam ne dañuy wax rek te xamuñ ni état di doxee mais ñëpp xam nañ ne quand suñu état c'est très organisé ministère de la santé parce que Covid bi dañ ko yore sax dañ ko gérer woon de façon vraiment transversale ñëpp ci bokkoon bi mbir mi amee président dafa taxawal loolu ñu naan am nañ lu ñu naan comité national de gestion des épidémies nga xam ne moom mooy yore lépp luy xeex jàngoro ji waaye bi ñu demee ba koppar yu bëri xeex bi bëri président dafa taxawal le la commission nationale nga xam ne général Ndiaye moo ko yore woon François Ndiaye loolu quand même lu am solo société civile bi bokk ci journaliste yi bokk ci ñooñu ñoo ko saytu ak yi ak euh, société civile bi ñu paree dañu def un rapport publier ko je pense que loolu un gouvernement ne peut pas être plus transparent loolu lu leer naa ñi la leneen li ci des nag il faut que ñu am ab opposition boo xam ne léeg-léeg danañ agité wu wax leneen mais jàpp naa ne quand même Covid bi Sénégal liggéey na ci te ñëpp gis nañu quand demoon nañ ba oxygène bi manqué ak engagement yi ci président jël ñu jël yoo xam ne Air Sénégal réew yi njëkk am ñàkk ci Afrique Sénégal ci la bokk. président dépêché avion ñu dem jëli ñàkk yi ba Chine indi ko ñàkk sénégalais yi taxawu ci président toog palais ak ministre ak ñëpp tàllal seen loxo ñu ñàkk leel ay kilifa diine fii ñu sant Mbàkke ñu sant si famille yëpp mobilisé wu. jàpp naa ne quand même kenn warul yaakaar ne loolu folo woon liggéey bu am solo lañ ci def gouvernement bi wane ci Pastef gu mat sëkk nit ñi également liggéey ci bu amee nag des erreurs ci cohérence yi ak gestion bi loolu cour bi leeral na ko ñi nga xam ne tudd nañ leen ci danañ indi ay leeral. donc kon lii jote weesu mën nañ ne maanaam yéen jàpp ngeen leer na nañ teyit nag wala boog fekkente ni am na ñoo xam ne laal nañ comme ni nga ko waxee sànq ñu leeralal yëf yi ba mu leer naa ne ci askan wi. non loolu moom taxul sax ñuy wax loolu moom dina leer nañ parce que euh, li ñuy wax redevabilité moom dafa am solo gis nga bu yàggul premier ministre dalal na acteurs yi dégluwaat leen ñu wax mu jox leen ay réponses yu leer nañ ak des documents loolu jàpp naa ne quand même te premier ministre c'est la deuxième personalité daanaka de l'État dans le gouvernement loolu quand même niveau de responsabilité la boo xam ne leer na nañ. ñu ñëw nag ci drame bi nga xam ne weesu am na fi ci euh, fan yi ñu weesu. bu njëkk ci Sikilo tey jii ñuy wax ak waxtaan ak yow yeewu waale nga tamit ak benn euh, naqar benn information bu demaat fële ca sàkkal euh, li nga xam ne moom mooy le message bi nga xam ne porté woon ngeen ko ci Sikilo dafa mel ne des na tamit pour ñi nga xam ne ñoom ñooy usagers yi wala boog les acteurs yi nekk ci secteur bi mën na ne le chauffeur mën na ne donc euh, les transporteurs am na loo xam ne duggagul seen nopp yi ba tey lan mooy seen message yéen bi ngeen ngeen porté toujours. waaw li ñuy njëkkee ko yëgee ni ma ko tàmbalee sànq mooy ñaanal ñi nga xam ne yàlla def nañu loru ci accident yi si di képp ku sénégalais mbir mi naqari na loolu ak foo mën a bokk dem nañ ba ay président bitim réew def ay lettres pour wane seen solidarité ak Sénégal comme ni nga ko waxee. Euh, démb Louga bi métti na lool parce que Kaffrine ni mu fi woon ñu ngi doon jooy comme ni ñu koy waxee ci wolof rongañ yi fereguñu Louga ñëw tey dal ci suñu kawaat mu metti lool euh, ministère de la santé nga xam ne fa nekk mbir di am dañuy daal di mobiliser wu. médecin chef région gis nga Kaffrine d'abord si kilo te loolu tamit am na solo ñu fesal ko te defe naa ne sénégalais yi xam nañu ko accident bi bi mu amee Kaffrine ñaan ñu ko yàlla metti na lool. faj yi métti na am na ñu ci ñàkk seen bakkan waaye Sidi bu fekkoon ne hôpital Thierno Ibrahim Ndaw nekkul woon Kaffrine nañu xool situation bi naka la doon demee parce que accident bi trois heures di matin la am bu fekkoon ne ñoo ñëpp dañu la war a jël pour évacuer leen Kaolack 200 et quelques kilomètres doon na métti waaye président Macky Sall ci vision moo taxawal hôpital yooyu gis nga ci ñetti at ñu tabax hôpital Touba tabax Sédhiou tabax Kédougou tabax Kaffrine. fi may waxee yow teg nañ xeeru hôpitalu Saint-Louis chantier bi tàmbali na hôpitalu Tivaouane également chantier bi tàmbali na teg nañu xeer wi ak Ourossogui loolu jàpp naa ne quand même ci engagement Sénégal mësul am à ce niveau de responsabilité ñu réaliser ay infrastructures yu toll noonu ci ay at yu néew léegi nag bi accident bi amee comme ni ñuy waxee metti na choc bi ak guddi gi ñoo am ñoom ñàkk nañ seen bakkan waaye ñëpp ñi nga xam ne ay traumatisme lañ ak yeneen opération yëpp def nañ ko Kaffrine ci hôpital bi daanaka benn defe naa ne lañ ci évacuer sur Dakar te loolu jàpp naa ne quand liggéey bu am solo la liñ bëgg nag mooy ñu fexe ba ñëpp góorlu ba accident bu mu am teewul tamit ci tali yi euh, Sidi bi accident bi di am Kaffrine semaine bi ci topp ñu ngi demoon Matam euh, Tamba ànd ak président Macky ci conseil bi dem nañu ba inauguration la route Tamba Koudi euh, ki euh, Goudiri Kidira muy ab tali boo xam ne ñëpp gis nañ reportage yi journal euh, chauffeur yi ak transporteur yi nee nañ dañ daan def ñetti waxtu daanaka pour Tamba ak Goudiri tey lu mot waxtu waa Goudiri dañuy jóge Tamba di Goudiri ñëw Tamba delluwaat loolu quand même te tali Sénégalais yi ñu ngi ñuy déglu man dama ci télé bii di wax loo xam mais ñëpp gis nañ ñaata tali kilomètre de tali la ñu defar entre 2012 ak léegi. waaye ci autoroute bi gis nga niñ ko defee tey jii da ngay jël autoroute ñëw Touba jël autoroute léegi tey dem Kaolack Dakar Mbour pare nag Kaolack mbuur moo ci desee ci finition bi te ñu pare dafa war a continuer Tamba loolu yëpp bu ñu koy def mais train bi ñëw yokku ci gis nga tey président def na investissement yu mag pour que ñu suqaliwaat raay bi Dakar Kaolack Tamba surtout war a dem Mali mu gën a am solo parce que loolu bu amee dana wàññi tali euh, tali bi mais politique renforcement infrastructure yooyu yamul ci tali bi rek ak raay yi même yi gis nga tey le programme important bi ñu am pour réhabiliter les aéroports régionaux fi may wax ak yow Tamba commencé na en chantier Ziguinchor dañu tëj aéroport bi fi ñu toll nii avion yi Cap Skirring la ñuy taxaw parce que ñu ngi defaraat aéroport Ziguinchor Saint-Louis la même chose mais loolu quand même gouvernement bu am loolu am na vision boo gisee transport bi ci biir Dakar gis nga tey BRT bi mais mi ngi taw te d'ici le mois de mars avril dañoo war nañu ko inaugurer loolu engagement yu am solo la gis nga autopont yi ñu def ci dakaar tey jii ah, mais loolu yëpp tey pour renforcement désengagement mais mobilité bi parce que transport secteur de développement la loolu yëpp nag bëgg gouvernement bi di def mais ñu boole ci également engagement gis nga tey Dakar dem dikk tey dem ba ci région yi kaar yi naam réglé problème yëpp mais am na lu mu wàññeek mais loolu yëpp bu ñu ko jël il faut que également ñi nga xam ne nag ñoo yore secteur bi muy les transporteurs mais il faut que ñu collaborer avec l' état parce que quand même si di Sénégal aussi dafa soxla nag développement ñun ñi ñëpp dañuy tukki léeg-léeg di dem bitim réew oto bu yeb bagage mais mënut a nekk ab bus nga def ci loo xam ne ci bagage ci suuf ak ci kaw moo ëpp doole liy nekk ci biir mais loolu c' est est des problèmes de risque. jël ay jur ay xar ak ay nag ñu yabaloo leen ci biir oto ñu nekk ci ay doomu adama ça c'est pas possible il faut que également pro politique yooyu mesures yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko parce que bi mbir mi amee président bi mu demee dafa premier ministre ne ko nañu def conseil interministériel ñu def conseil interministériel bi presque 19 heures la ñu commencé ba tard dans la nuit ñu jël ci ay mesures 23 yu leer nañ président ne nañu ko appliquer mais kon transporteurs yi tamit dañu war a collaborer parce que état tamit moo yore responsabilité dundu doomu aadama yi dafay am foo xam ne bu ñu fa àggee nag c'est des mesures yoo xam ne état moo ko war a jël dañ koy jël dañ koy assumer te ñoom ñi ngi doon wax déjà grève gis nga tey accident Louga bi ñëwaat dal ci suñu kaw. loolu donc res ñëpp d'accord nañ ne accident yi li ko waral surtout du tali waaye comportement chauffeur yi waaw li ñu naan le facteur humain. xoolal chauffeur boo xam ne day daw Vélingara di ñëw dakaar benn bus chaque jour nga def ñaari voyage loolu benn chauffeur doon doomu adama attanut loolu c'est pas possible chauffeur longue distance bus bu ne dafa war a am ñaar wala ñetti chauffeur nit ñi dañu war di noppalu waaw tant que defuñu loolu il y aura toujours des causes d'accident et dañuy continuer à perdre des vies humaines et il faut que le gouvernement moo am obligation protéger doomu aadama yi d' accord donc euh, message la boo xam ne tamit par euh, contre yaa ngi ciy yaa ngi koy lancé waale pour donc euh, muy les acteurs usagers yëpp tamit yow en tant que donc directeur SNEIPS mais donc luy des tamit moom mooy que ni données yi ngeen di am parfois ci wàllu communication par rapport ak mooy li nga xam moom mooy xew ci secteur sanitaire bi. Euh, lu ni mel bu ngeen ko bu ngeen ko ji dollee ci bu bu dollee ko bokk ci li nga xam moom mooy am ci tali bi euh, est-ce que parfois du xaw a buureel seen liggéey yéen euh, yi nga xam ne yeneen yore secteur information. waaw xam nga gouvernement moom ay éléments yu bëri la loolu ñu naan ci multisectorialité ñun tey dañuy liggéey ak ministère des transports di liggéey ak prévention routière démb rek maa ngi jokkoo ak sama nattangoom directeur. de euh, SENTER nga xam ne moom moo yore transport bi mais également ANSER agence nationale sécurité routière mm, euh, docteur euh, Gaye waxtaan nañu xool également naka la ñu war a renforcer communication bi parce que su accident amee nit gaañu rek ministère de la santé mooy jël en charge donc ministère de la bu ñuy liggéey ci prévention routière ak communication bi ak sensibilisation bi dafay tax ëllëg si biir ñaanuñu ko yàlla accident du am te bu accident amul blessé du am ministère docteurs yi ak hôpital yi du ñu am débordement loolu moom dafa war a am boole ci ak ministère de l'intérieur sécurité bi muy gendarmerie muy police ñun ñëpp dañuy bokk di liggéey moo tax ma wax la conseil interministériel bi ñu def ko dañu toog ñëpp toog ñu jël ay mesures waxtaanee ko. bu ñu paree nag mesures yi décisions yi gis nga ko président nee na nañu def benn haute autorité chargée de la sécurité routière nga xam ne un officier supérieur boo koy gérer nekk au ministère des transports loolu yëpp c'est des décision de souveraineté yeneen décisions yi mooy à partir de 23 heures ba 6 heures du 5 heures du matin benn oto dootu daw gis nga accident bi am Louga 5 heures du matin la am ça veut dire que ni ñaari chauffeurs yi am na ci koo xam ne leerul woon ci moom parce que gisul woon mbaam mi mën naa am donc y a problème de visibilité loolu yëpp guddi gi day am bi bi am Tamba trois heures du matin la am donc guddi gi facteur de risque la waaw ñi di wax a yow saa suñuy voyager guddi léeg-léeg man naan chauffeur bi ña contrainte dëgg rek mooy tax ngay voyager guddi parce que même boo oto amee oto bu baax problème de visibilité moom day wàññeeku ci guddi gi li ngay gis te nelaw tamit guddi la gën a yomb ça veut dire que nag il faut que ñu jël ay mesures sur Euh, Bara Gueye mbokk yi moom mooy sunu gan ci seen émission bi nga xam ne moom mooy nemmeeku entretien exclusif bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci Taïba Cekkeen euh, Bara dañu ñëw nag ci euh, gannaaw bi ñu duggee ci li nga xam ne moom mooy administration ñi ngay fonctionner foofu ñu ñëw ci département de Mbacké bi nga xam ne yaa ngi ciy yëngu ñu ngi fàttaliku ci gannaaw tuuti def mën ngeen fi ay combats yu bari pour gagner des élections bi ci mujj moom mooy euh, ACT yi bi nga xam ne donc euh, seen am ngeen ci ay candidats yoo xam ne jàll nañ mais yow bi ngay nekk adjoint au maire Bara biñ la tabbeer da nga génn rek avec des larmes c'était quoi donc euh, ces larmes là ñuy rappel ñuy dikkaat ci rappel waaw li ma waxee larme mbokk yi ñu seetaan mooy ronkoñ. li may njëkk mooy féliciter mon frère monsieur le ministre Galoba nga xam ne tey yàlla dogal na ñoo bokkoon di wut mairie Mbacké ba yàlla def ñu population Mbacké wóoluñu gañe ñu te ba ñuy wut tamit bëri woon na ñoo xam ne ci mouvance bi dañu demoon ber seen su bopp waaye man bi président biñ génnee investiture yi ñu jiital Gallo dama ànd ak moom ñu def suñu liste ñu xeex te yow yaakaar naa ne yaa ngi doon suivre campagne bi waa Mbacké ñi ngi may dégg te ñëpp xam nañ ne campagne bi macha allah def naa ci li ma man saf naa ci sàpp ànd ko moom accompagner ko bi ñu paree yàlla may ñu ndam ñu installé le bureau du conseil municipal yàlla def ma bokk ci adjoint yi loolu tamit que euh, ndam ndam la ci man te ab sag la ci sama famille ak ñëpp te képp ko xam sama famille xam ne sama papa danaan yëngu ci politique bokkoon ci responsable yi parti socialiste fii ci département bi doon fi ànd ak suñuy waajur yu jiitu ji tamit Samba Yàlla Diop Amadou ba ci suñu mag mi nga xam ne moom mujj a génn àdduna muy Ibrahima Guèye yàlla yokk ko ay leeram kon tey bu yàlla defee tamit euh, may yënguwaat ma nit ci politique samay njaboot di ma jàppale su may mag su may rakk su may nijaay ñëpp mobiliser wu ak population Mbacké ak su may mbokk naar ba yàlla def tey ñu gañe mairie bi ba ma ñëw bokk ci adjoint yi keroog bi ma taxawee foofu sama xol tooy na parce que dama xalaat ne Euh, yëngu naa dëkk bi nga xam ne fii laa doon jàngee tey nga dem ba dégg fa monsieur le maire loolu responsabilité bu mag la ma mesuré ko ma muy àndee mën a galo ci guddi gi ñuy def caravane jeunes yi topp ñu ñu yéeg taxaw ci oto bi maak moom dama ne ko mon frère nañ xalaat fu ñu mën di toll juróomi at yi di ñëw jeunesse su Mbàkke espoir bi ñu am ba topp ñu yàlla na yàlla def ba espoir boobu ñu mérité ko te tey président gestu nañu parce que tey il est ministre de la république ajjuma ji passé rek xam naa bu seetaan dana ma dégg gisante nañu ma moom bureau ñu bokk waxtaan lu ma une heure de temps ci dossiers yi problème yi Mbàkke te loolu man Mbàkke rek moo ma ñor du question post bi walla leneen waaye dafa jot nag ñu liggéey te yàgg naa ko wax Mbàkke dafa yàgg mu war a am ministre te gis nga gouvernement yi weesu yëpp dama daan yëkkati sama kàddu di ko wax ne d'accord ma ci jàpp naa ne ci Sénégal fi ñu toll nii mënatuñoo former ab gouvernement te ku dëkk département Touba ak Mbacké bokku ji te loolu tey président Macky Sall macha allah dégg nañu ci kon ñu ngi koy féliciter di ko ñaanal. donc mi ngi leen ci jeunes yi comme ni nga ko waxee ñu ngi leen di ci réalisation yu bëri euh, mais dafa mel ni li gën a fës jamono ji moom mooy ay ay ay nomination te ñi ngi wax nomination mais. Euh, bu fekkente ni wàllu durée mandat président bon à quelque on dix mois la euh, ku ci nekk yaa ngi xalaat ne dal lay mosal rek pour quelque temps jàpp nga ne loolu la walla liggéey la boo xam ne boo ko wanee mën na am yàlla def nga continuer ci. waaw ñun au niveau du département euh, du ñu liggéey pour dix mois walla un an bi des parce que dañu fal pour cinq ans li ñuy ñaan nag mooy actuellement dañu engagé wu ci à parti bu tudd alliance pour la république président Macky Sall di suñu njiit ñu jëm ci élection présidentielle. au mois de février prochain 2024 nga xam ne daanaka ci at lay toll kon suñu programme dañ ci war a boole d'abord programme de réalisation population yi département Mbacké te loolu jàpp naa ne ñu ngi ciy dox gis nga tey ndoxam Sadio mi ñu ngi koy bënn mi ngi ñëw te loolu ca indépendance ba nëgë ni département Mbacké kenn mosu ko xalaat dox nañ ci xeex ci wax ci plusieurs fois ak président ba tey jox na instruction ministère de l'hydraulique mbir mi ñu ngi ciy liggéey pour que ndox mi neex mi mën a ñëw Touba ak Mbacké tali bi tamit gis nga Sadio ak euh, Gerle ak Taïf ñu ngi ciy dox président joxe nañ instruction chantier bi jàpp nañ ne dana tàmbali ci Mbàkke tamit keroog àjjuma waxtaan naa ci ak monsieur le maire ñu ngi ciy liggéey ak Promoville pour que ñu ñëw ñu defaraat tali Mbàkke yi aménagement bi ak lépp péage yi parce que yooyu tamit dafa baax ñu réaménager ko au niveau de Mbàkke marché bi wax naa ci keroog conseil municipal defe naa ne waa Mbàkke dégg nañu ko il faut que ñu jàppale ñu ñu réorganiser waat marché bi jàpp naa ni semaine yi di ñëw monsieur le maire lu bureau municipal danañ daje ak les commerçants ñu waxtaan ak ñoom xool naka marché Mbàkke bi nan lañ ko war a réorganiser parce que marché tamit dañ koy organiser ñiy jaay yàpp ñu ànd ak ñiy jaay jën lépp pëcc xoo bu nawet jotee dugg ci marché bi dafa jafe te marché bi rek mooy suñu principale source de revenu fu la ñuy jëlee koppar guñ mën a yokkee budget mairie bi mais également wér-gi-yaram gi man ministère de la santé laa nekk waxtaan naa ci keroog ak monsieur le maire maa ngi ciy waxtaan ak suñu madame le ministre également pour que ñu defaraat bu baax centre de santé bi bokk na ci programme yi nga xam ne deux 2024 bi jàpp nañ ne dana war a yëngutu pour que ñu defaraat le centre de santé de Mbacké mais ñu defaraat également pôle mère enfant pour que ñu am maternité boo xam ne war nañ fi man sax di opérer parce que tey Mbacké lu yëngu dañuy référer sur Touba. loolu tamit waxtaan naa ci ak euh, suma nattangoo bi nga xam ne moo yore projet boobu ci suñu ministère le la direction de la santé de la mère et de l' enfant pour que la maternité de Mbacké bokk ci programme yi année 2023 bi pour ñu jàpp ci bu baax loolu yëpp boole ci également euh, suuf si ñëpp xam nañ ni tey ñi dëkk Mbacké di ay jeunes mais bëgg nañu ay terrain te Mbacké ngi ni ay at a ngi defuñu lotissement ndax yàlla dafa def Touba wër ñu ci côté bu nekk kon tey il faut que également le maire de Mbacké ñun ñu liggéey ci pour que au moins ak le ministère des collectivité territoriales parce que Touba daf ñu wër ci côté bu nekk il faut ñu xool waxtaan ak le maire de Kayel le maire de Madina ak le maire de Dalangaabu pour ñu xool naka lañ mën a yokkee Mbacké parce que ñun ci côté boobu rek lañ mën a yokk territoire commune bi te loolu il faut que ñu def ko éducation bi wax naa ko également il faut que ñu waxtaan davantage ak le maire de Touba Abdoulaye Ka man dinaa ko seetiwaat fan yi waxtaan ci ak moom parce que aujourd'hui ñu ngi doog a tàmbali budget bi te tey ñëpp xam nañ ne élèves yi Touba yëpp Mbàkke la ñuy jàng si yow ci secteur éducation nga yëngu en plus de communication bi nga nekk nii te li may wax xam nga ko élèves yi ëpp ci Touba Mbàkke la ñuy jàngee si ah donc tey budget mairie Touba dafa am obligation dugal loxoom ci Mbàkke jàpp lañu ci ay table banc jàppale ñu ci ay construction de classe loolu yëpp dafa war a am transport bi élèves yi diggante Touba ak Mbacké dañ ci war a xalaat rafetutu tey suñu élèves yi di jàngi dugg ci ay oto Touba Mbacké di rang di lang di daanu di am ay accident mais donc le problème du transport des élèves entre Touba ak Mbacké c'est un problème crucial et urgent boo xam ne dañ ko war a régler loolu yëpp ak yeneen problème yi dañ ci war a waxtaan te jàpp naa ne buñ ci waxtaanee ak le maire de Touba parce que ñun ñëpp tey Touba ak Mbacké Cheikh moo ñu jiitee te jàpp naa ni war nañ ko seeti gën ci waxtaan ak moom moom it mu gën ñu jàppale ci côté boobu te tey mairie Touba ñoo ñu ëpp doole ci koppar il faut que ñoom aussi intercommunalité boobu intercommunalité boobu ñu am ko entre Touba ak Mbacké surtout ci secteur éducation ak transport. d'accord mais wax nga benn secteur yu bëri mais am na foo laalugut te mu nekk bu sensible muy euh, euh, jeunesse ak sport euh, dafa mel ni. am na lu nu entamé mais donc dafa am benn lenteur bu ci nekk boo xam ne tey waa Mbacké bu ñu sañoon dans euh, moins de temps boo xam ne mooy deux deux mois sax ñu ñu réaliser wu i nga xam ne moom mooy seen rêve bi nga xam ne amoon na ko yàgg. waaw loolu quand même ñu ngi ciy góorgóorlu xam nga Mbàkke euh, stade bi ñëpp la metti woon bi ñu demee ba nga xam ne bii nekk ci yoonu njaareem bi terrain bi joxoon nañ ko sëñ bi. à occasion la ñu nit ñu gënoon a wax président ne ko il faut que ñu jàppale ñu pour diligenter le dossier du stade de Mbacké parce que département Mbacké tamit gone yi dañu soxla fu ñuy tàggate yaram te dañ tey jii am nañu équipe yoo xam ne ñi ngi aspirer monter dans l'élite maa ngi féliciter vraiment avenir de Mbacké ak góorgóorlu yi ñuy def le président Badiane ak tout son staff donc ñun ñi ñëpp tey dañu war a mobiliser wu pour que estade bi yegg te jàpp naa ne li gënoon a metti romb nañu ko parce que tey jii daanaka construction bi loolu ñu naan ci tubaab les gros œuvres pare nañu ko donc gazon bi ñu ngi koy teg éclairage bi li ci des mairie bi war na ko diligenté jàpp naa ni ci semaine yi di ñëw monsieur le maire dañu ànd dem defi fa ab visite pour xool également l' état d' avancement du chantier mais surtout lépp li ñu programmé woon ci stade bi parce que stade bi du terrain de football bi rek complexe la woon donc yeneen euh, yeneen volet sport yi muy basket bi muy handball bi lépp li nga xam ne daal bokkoon na ci plan initial u stade bi loolu il faut qu'on veille à ce que l'entrepreneur regle règle euh, respecte tous ces tous ces toutes ces conditions la te jàpp naa ne quand même monsieur le maire dina ci veiller bu baax mais également avec l'accompagnement de tout le tout le mouvement sportif particulièrement Euh, l'institut le mouvement sportif de Mbacké le président Badiane ak ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ciy yëngu moo koy félicité bu baax moom tamit di félicité tout le mouvement associatif de Mbacké wax leen ne ñoom ak ñun mairie bi ñoo bokk parce que ñun ñëpp suqaliku Mbacké rek moo ñu tax ñu yëngu. ci benn côté maa ngi doon wax ak Bara en tant que euh, maire euh, adjoint maire moom mooy maire d'une manière générale ñu jeexale ko ci. li nga xam ne moom mooy avenir u euh, Mbàkke ci politique bi nga xam ne moom ngeen yëngu lan la waa Mbàkke di xaar ci yéen dëgg-dëgg ak li nga xam ne moom mooy troisième candidature bi nga xam ne moom la ñuy laal buy Macky président Macky Sall ndax yéen da ngeen ci liggéey wala da ngeen naan ñett lu am. waaw ñun li ma gën a soxal man mooy premièrement mooy yaakaar ji nga xam ne wax naa ko sànq ci bi ñuy tàmm door émission bi waa Mbacké am nañ ci ñun confiance ba dénk ñu mairie bi toujours loolu laay wax monsieur le maire te yàlla def na ministre la programme yi chargé yi gën naa bëri man mi direction laa yore jot gi day manqué lool léeg-léeg yëngatu yi day bëri déplacement yi mais suñu premier suñu première préoccupation c'est Mbacké te man de bëgg naa bu juróomi at yi matee ñun jàpp naa ne war nañu demaat daag daagaat baatu askan wi waa Mbacké ne leen ñun kat février 2022 ngeen ñu joxoon Mbacké tey jii yegg si nañ 2027 fii lañ indi dëkk bi fii lañ ko jëlee fii lañ ko indi lii moo am ay ay changement loolu bu ñu ko defee jàpp naa ne deux mille vingt 2027 war nañu mën a laajaat Mbacké war a changer programme yi léegi nag loolu dañ koy boole nag ak parce que comme yàlla moo def ñun ñoo nekk ci gouvernement ah il faut que aussi ñu utiliser suñuy position de d'état pour régler les problèmes de Mbacké ah jàppale ci président Macky Sall jàppale ñu ci loolu ñu ngi ciy dox wax naa la nga àjjuma def naa séance de travail ak monsieur le maire et noonu la ñuy defee suivi dossier yi chaque semaine dañuy gisante Dakar wax ma fan la toll ci li mu yëngatu ma ne ñan contact laa jël ma ne ko fii lañ ci toll fii lañ ci toll ñu woo secrétaire municipal bi jàppale ci waxtaan ci également avec le préfet parce que moo fi nekkal état c'est notre premier soutien également gis nga keroog bi ñuy def conseil municipal euh, dama interpeller le payeur ne ko dañu bëgg également yow it nga jàppale ñu wax ñu naka lañ mairie bi war a jàppale pour que impôt yi ñu wax fexe ba waa Mbacké gën a góorgóorlu ci fay impôt bi ñu mën a yokk budget bi et loolu dañ ko war a def ak communication bi parce que waxtaan ci également ak la commissaire de police pour que ñu renforcer la sécurité de Mbacké donc loolu mooy suñu liggéey waaye nag teewul ñun aussi ay acteurs politiques lañ ñu di wax a yow dañuy yëngu au niveau national alxames bii passé def nañ suñu réunion des cadres euh, su la présidence du coordonnateur Abdoulaye Diouf Sarr presque 17 heures lañ commencé ba une heure du matin parce que président war na dalal cadre yi ci semaine bi ñu ñëw yaakaar naa pour que ñu waxtaan davantage politique parce que tamit dañu yor appareil gouvernement waaye teewut agenda politique bi waruñu ko seetaan te gis nga ñi ñu jàkkaarloo duñ ñu may dara kon il faut que ñun aussi qu'on se prépare pour que bu ñu àggee 2024 incha allah ñu mën a sampaat suñu yàlla may ñu ndam. sampaat ko ci kan. non loolu moom ñun xam nga ci parti bi ñun ñëpp moom suñu candidat c'est le président Macky Sall loolu moom c'est clair te man yaakaar naa ne tàmbaliwu ma ko wax tey Macky Sall mooy suñu candidat en 2024 léegi nag comme moom li mu wax waxagu ci parce que waxam jotagul ñii nga xam ne tey déclaré nañ muy Sonko muy ay Malick Gakou ak ñooñu ñëpp ay opposants lañ ñoom yoruñu état tey donc ils ont la le gouvernement de la parole ñoom dañuy wax loolu lañ toll waaye ñun nag ba fi ñu toll nii may wax ak yow ci liggéey lañu ñu toll waaw waaye ñi nga xam ne nag ànd nañu ak président Macky ñoom di politique ñooñu am nañ droit président yaay suñu candidat léegi nag gars moom xam naa coow li bëri na parce que ragal nañ bër mi waaye mbër mi moom bëgg bëre bañ bëre <laughs> loolu olof nee na séddali tàmm naa ci kudd yu njëkk ya euh, tey ba wi nga nekk euh, baara lan la fi samp ah, bi nga ko depuis nomination ak xeexam ci wàllu politique waaw ñu ngi ñu ngi sant bu baax parce que wax ci sa bopp yombul waaye waa ba ñu ngi may déglu xam nañ ne euh, même bi nga xamee ne dama daan fanaan Mbàkke sax euh, daara ji taxawgul woon nii mësuma bàyyi Taïba gàmm gu jot fii laa ko daan gàmmoo lu mas a xew ci ba ma ñëw muy naqar muy tiis te loolu jàpp naa ne waa ba ñu ngi koy dégg samay mag ñi nii ñooy samay xalifa fekke nañu ko ñoo fi nekk ñoom yàlla def na juróom-ñaari fan yëpp Touba ak Mbàkke ak fii Taïba la ñuy yeewoo kon ñun ñi nga xam ne ñoo soxi ko ci Samba Gueye yaakaar naa ne mën nañu daagu ba ak Mbacké ñëpp xam nañ ne ñi ngi góorlu pour di jàppale dëkk bi fi ñu ko war a féete li ci des nag mooy bëgg nañ tamit dëkk bi gën a ko bu baax te loolu moo tax tamit ñu sàkku fexe ba ñëw di fi nekk 7 jours sur 7 saa su ma ñëwee weekend samay activité politique Mbacké laa koy defee parce que Mbacké laay voté Mbacké laa nekk adjoint au maire ah waaye nag Taïba Cekkeen laa cosaanoo nag fii lay fanaane te bu ñu fàttee ne ci ginnaaw histoire Samba la Diop nekkoon na maire Mbacké waaye Kayel la daan fanaan yi saa su guddi gi jotee Amadou Ka tamit la même chose kon tey ma it Bara yaakaar naa am naa droit ah di liggéey Mbacké di politique yi Mbacké waaye bu nga takkusaan timis jotee nag ma fanaan si Taïba Cekkeen ah, nekk fi ak samay xarit ak samay morom ñu naan suñu ataay macha allah euh, jëfandikoo suñu suñu cere mbuum. Euh, mën na tamit ci wàllu institution yi nga xam ne donc euh, mi ngi nekk ci département bi ngeen di ci jàpp euh, dafa mel ne conseil départemental mbaa Mbàkke ñi ngi naan xamuñu ko ci réalité nag laay waxee ñi may seetaan man awma lu ma ci parce que waa Mbàkke ñoom ñoo wax ñu ne xamuñu ko parce que gisuñu lu mu commencé di yëngu peut-être loolu seen gis-gis la. looy confirmé la wala looy loolu kay moom xam nga sëñ Fallou moom sama xarit la bu baax euh, président conseil départemental waaye bañ ko falee yàlla dogal na man ci conseil municipal bu Mbacké man maa ci nekk euh, membre du conseil départemental ci ñi ci bokk laa bokk waaye naka jekk loolu laa ko wax. ne ko moom Mbacké vraiment on a un conseil départemental boo xam ne sentiruñu ko fi may wax ak yow ñuy def émission bi yu matul waxtu laa doon wax téléphone ak Abdou Niane secretaire général conseil départemental bi ma ne ko mais Abdou mënu leen quand ñu nattal leen budget at mu jot ngeen toog rek ah di eh, di xumtoo budget bi di sàqami ba mu jeex rek bu année beneen année ñu nattalaatee budget lan la conseil départemental am comme programme ci éducation bi ak tout tey conseil départemental yëpp daanaka ñu ngi tenir seen i réunion euh, budget ñoom altine bi di ñëw defe naa la ñu convoqué loolu la ma secrétaire général bi wax sànq ci téléphone waaye. dëgg gi mooy conseil départemental u Mbàkke eh, sentiruñu ko suñ fàllu moom dama nekkoon koon sëñ bi ñam nga ñaari yoon nag bii moom yàlla dogal na nag yaa gàñe waaye jàpp naa ne da nga góorlu parce que tamit yow it dafa am foo bokk te da nga am responsabilité nag yow it bu cinq ans yi matee nga tiré un bilan ne conseil départemental Mbàkke def nañ lii def nañ lële ñun nag li ñu war en tant que euh, membre du du parti au pouvoir moo di ne fexe ba conseil départementalu Mbacké lépp lu ko gouvernement bi war a defal ñu jàpp ji ba loolu am waaye nag au sein du conseil tamit dana ñu joue suñu rôle de veille à ce que le budget du conseil départemental ñu mën ko utiliser judicieusement parce que réalisation yi ñu war a def conseil bi war ko def sinon également danañ utiliser les possibilités que nous donne le code des collectivités territoriales pour arrêter parce que y a le représentant de aussi et le préfet man dama ciy waxtaan ak moom toujours Euh, monsieur le directeur du SNEIPS euh, ñu ngi lay jaajëfal suñu émission euh, matandina yan kàddu moom ngay tëjee ci bu ko defee ñu joxante rendez ci yeneen jotaay. xanaa di la sant di la gërëm bu baax Sidi liggéey bu am solo bi ngay def ci sa organe bi di vingt 28 pro yaa jeune caméraman bi nga àndat ak réalisation bi yëpp di leen encourager parce que lii tamit dafa dafa baax. jàpp naa ne tey quand même dans l' espace audiovisuel national am nga fi place saa soo ma interviewé sa élément yi su ma ko partagé gars yi dañ may woo mais Lamine Bara 28 Pro l' élément est très bien fait donc je vous félicite pour ça pour la qualité du travail di la wax tamit na ñun doomu Mbàkke lañu Euh, doomu Taïba Cekkeen doomu département bi lañ fu ñu nekk rek suba ba ngoon département Mbacké lañ fa nekkal moo tax ñu ci yëngu naam euh, suñuy euh, doole bëriwul waaye suñu sañoon tey Mbacké bokk ci département yi et tey jii yàlla def na président de la République dénk ñu ndombal tànk ah loolu tamit euh, ndam la ci képp ku cosaanoo Taïba Cekkeen parce que jàpp naa ne ci génération bi man maa ci njëkk a nekk euh, doomu Taïba bu am décret du président de la République loolu tamit ndam la ab sag la ci man te dama ko jël avec humilité mais mesurer ko aussi avec responsabilité di terminer encore ñaanal suma maire monsieur le maire euh, Alioune Seck Bada tànk yi gën a woyof bu baax parce que moom it ku am yéene ci Taïba la ak l'ensemble du conseil municipal de Taïba Tchékène ak l'ensemble du conseil municipal de Mbacké sous la direction de mon frère le ministre Galoba pour que population Mbacké yëpp gën ñoo jàppale pour que li nga xam ne mébét nañ ko ci département bi yàlla dimbali ñu ci ñu mën ci am ndam man nag ci suma kàddu politique mooy remercier le président Macky Sall pour la confiance mais fu ñu toll également engagé wu pour le département de Mbacké di ñaan tamit kilifa diine yi nga xam ne maanaam danañ déglu élément bi ak ñi fi nekk ne ñi ngi feddali suñu coloré suñu cëslaay ci yoonu Serigne Touba muy kër sëñ Fallou ak xayra waaye di ñaan tamit mun Mountakha ak sëñ Bass porte parole du gouvernement ñu continuer ñi ngi ñuy jàppale bu baax ñun ñuy yëngu politique ci département ñu gën ñoo jàppale rek incha allah pour que président Macky Sall gën di déglu euh, li nga xam ne mooy doléance su département Mbacké jërëjëf encore. jërëjëf jërëjëf Bara Gaye jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan tamit ci seen site 28 pro maa ngi tamit jaajëfal euh, tout la famille euh, suñuy kilifa ñoo fi nekk rek euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen teewaay ci participer ci waxtaan bi di gërëm tamit waa mbokki ba Cekkeen yëpp ci maanaam dalal bi ak tamit yaatal bi ba ñu mën a def li nga xam ne moom mooy waxtaan bi fii ci ba mbokk yi euh, nemmeeku édition spéciale euh, di entretien exclusif boo xam ne ñu ngi ko doon ànd ak ki nga xam ne moom mooy euh, monsieur Lamine Bara Gueye directeur SNEIPS ci kàddu gi àndoon ak Sidi Diakhaté ci caméra bi Omar Sarr réalisation Bekaay Ndiaye dig daje ci yeneen jotaay ak 28 pro.